champion. Talla Ama ngi taxaw. mais mbër lay bëggee. Ama naka yëngu yi. ah naka yëngu waaye maa ngi sant bu baax maa ngi bu baax. tey looy wut stade Iba Mar. waaw tey mun naa la sama turandoo mun naa la sama doom sama rakk xam na waaw ñoom ñoo tax ma ñëw di ñaanal yàlla Ousseynou Mané yàlla suñu borom may ndam. mais Ama ci ne moom. maa si kaw maa si entraînement yi maa si kawam. sa combat daa mel dafa jafe taxawal de. waa gars yi dañoo ragal. moo tax ñu ragal. mais xaw ma xam man sama mbir dafa gaaw. vite fait yaa ma a xam. dama laaj mu ne gars yi kii bi la ñuy daw xiir bi. waaw waaw yaakaar naa loolu la ñuy daw. dinaa ji daal beneen solo gaaw pour ñu ñeme ma kon dañoo ragal xiir bi. yàgg gi lu ko yàq. xaw ma a damay jékki-jékki na ma moo ñoo koy wax jékki-jékki dina ma yàqu na xale bu ndaw laa daal maa ngi fi daal. yaa Tapha Tine dégg naa tam ñu ngi koy waaw ñoo ngi koy def sori nañ si bu baax di ñaan yàlla yàlla na avancé rek. yow pare nga pour moom. pare naa pour ñëpp. est-ce que la nga ko defoon mën nga ko koo defaat tafaati. bu ko raw. bi yoon ay raw. bu ko ñemee bu ko raw. foo teg loolu. xale bu ndaw de entraînement gëm sam bopp xam sam bopp loolu dong la. fan yii dañoo gis nga xëy ñu déggaat Lac de Guiers Lac de Guiers da nga ko boole sa adversaire ba tey. Balla Gaye saa kees laa bàyyi géej waay. kon lagang ci bi. Balla saa kees daal laa bàyyi waaw. <laughs> Balla ak Sa Thiès kese nga bàyyi diggante Ama ak waa Pikine. waa Pikine man Pikine si laa bokk loolu du débat. yaa ngi booy relation. en daal maa si jàmm maa si jàmm ñëpp yéene naa ñëpp jàmm waaye en daal Ama dafa sap sap Pikine papaam am fu titre foncé mu fa mu fa ah, mu façon waa Pikine comprendre kon loolu du débat ay Ama waa Pikine. naam bi su ma amee xam ne maay borom Pikine waaw. kon daal a wax moom mooy Pikine. waaw loolu moom loolu la yàlla def waaw. kontaan ci. sant yàlla bu baax a baax waaw. <laughs> mais mon ami Babacar. fay naa ci loo maa ngi nii maa ngi ci jàmm rek sant yàlla. dafa am combat bu ñuy ruumanaat fan yi Ama Baldé Tapha Tine Ramas combat boobu yow actuellement ñor na. mais bañaa ñor bañaa ñor mbër boo ko mënee da koy daan ñaar yoon man de loolu laa te loolu. moo dàq Ligue des champions final bi. waxal waay. moo dàq final Ligue des champions. dafa am. waaw man moo ma dàqal final Ligue des champions. lu tax. ndax ñaari borom jom la ñaari borom ngor la kii yaakaaroon na andi woon na maa ci kanamu Ama Balde Ama Balde juumloo ko ne ko làmb du am maas dabante la bi laay fala loolu feeñee léegi nag fi mu toll nii. coow li coow li ci bindu teen bi la Tapha Tine ku ko daan abal ko yat bi moom lu cay xew nag man laaj naa la question bi delloon naa la. Ama de daal laaj naa ko sànq mu ne bu ñëwaatee la ko defoon day gën a métti ci moom bi kon di wuli waat feeñaat na kon. nga gis yow. wuli wuliwaat ak tulli tulliwaat feeñ na kon. mën am. ah je donne ma langue mën naa nekk. waaye dóor fa it mën waaye Tapha maa gën a de Tapha maa gën a de. waaye Ama Baldé màggat na. màggat na.